bio naturel mbokk yi les jaaxle jeex ndax probio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi mala ko wax probio naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé daf lay renforcer carrément ci walu sey tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri tële koy dégg rek probio naturel simpi bi nak bi nak moy topoto sen yaram ci walu yax Manam. Bolem lu ngeen amone ci ay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 Baye na ngeen def ak coono. waaw ñu ngi ci rek waa Medina. sàmm ñëpp a ngi ci jàmm. saw Sow. waaw. ma gis la deux minutes waaye. maanaam nga kaay ma gis ko. jàmm na. jàmm la du jàmm. Hmm. waaw Sow kañ la lu gëj a gisee ñun ñaar. ah. maanaam ñun ñaar kañ la ñu gëj a gisee gëj a gisee. kañ la gëj a gisee. waaw ñun ñaar kañ la gëj a gisee. xoolante ci ay bët yàgg na. loolu xawma ko di. voilà yàlla yàgg na. daa lay xamal ne nii nga ma rombe dafa mel ni amatoo mbébatu ma ñëw sa kër wala neexuma la wala sama ñëw gi da nga koo da nga koo dalaa neexul ab siif ab siif sax boo ko romboon sa buntu kër booy dugg war nga ne ko salaamaaleykum mais nii nga ma nuyoo nuyoo mel ni la te mën naa ñàkk nag mën naa ñàkk nag ah. dafa am loo indaale. man lu ma indaale lu may jàmm. déedéet indaale woo jàmm. ah, ah kay. déedéet. bu ma indawaaloon jàmm du ma ñëw sama kër sama kër. warul tàgguwuloo ma. dafa ndànk rek ñëw nga sama kër tàgguwuloo ma. waruma laa tàggu doo dafa ndànk woo est-ce que woo nga ma téléphone wax ma damay ñëw sa kër. jaru ko. xam nga jarul loo jaru ko. kon nag jarul nga may forcer nuyoo bu neex ni ma ni mu munu nuyoo ni ma ko munee ak ni ma ko sentiree noonu laa koy nuyoo. mooy yow loo may jaay loo may jaay man loo may jaay ëppale wu ma ko. boo ma gisee ni ma koloo nga xamante ni man jaay sa ru man fàllewu ma dara. am naa loolu ëppoo ma kattan gënoo maa doon bandi gënoo maa doon wëyu dama ne la kii sama doom moo fi nekk moo tax ma fiy ñëw. waaw waaw dafa génn. dafa génn sama doom fi newuloon du fi ñëw lu ma lay tàggoo man mënoo maa ëpp jàmm. gis nga man ay goro ay karan-karan boo mu fontoo wax ma loo ma warte wax dama lay nokk deux minutes. yow yaa mana a betul ba tuur say tànk man boo ma xoolee sax xam ne dëkk bi ma dëkk ku ragal dëkk fa yow yaay kan yow da ngaa soxor bon. man ngay seet iñaan fësee maa ko wax mu naa ma naa ngi sangam yow lan la ñëw sa tax ngay xulli sa bëri di ma bu jaaral yow lan la. gis ngeen nit loo nekk bandi nekk bandi nekk bandi boo demee ba nga dugg mag da ngay lem sa kook nga tëj. waaye démb man dem laa yërëm parce que yow même sa wax bi sax bandi bi nga nekkoon zone dañu. yow yaa jarar yërëm. yow yow yaa jarar yërëm man loo may yërëme. man loo may yërëme. man gënoo maa exposé. gënoo dal ëppoo ma yow da ngaa soxar man maa ko def waaye nag damay toog waree fii man kër gi sama ja sama doom moo fi sey. sa ban doom da koo jur. lan sa doomu mag la. ñoo bokk benn meen. benn meen ñoo benn meen. kooku yow ana sa doom. waaw yow kan. yow mënoo am doom. sa jeunesse yëpp def nga ko bandi yaagal. yow doome naa ma la ni est-ce que doxale nga yow. xam est-ce que doxale nga. kan mooy soxla de yoom bi nga nekk. sumikul ma sumikul. depuis bi nga nekkee. sumikul ma sumikul. billaay bi mu sumikoo ma teg ci. sumikul ma teg ci si wote yow loo doo ci teg saga. yow bu ñu simikoo ma wékk ci. waxuloo dëgg ak moom waxuloo dëgg bu ñu simikoo ma wékk ci. si man góoru góoru ñaari nga ba xaj yow da nga man góoru ñaari nga ba xaj laa doo dara. ah man yow ngay ab yomb bon. amul <laughs> fii laay dëkk. fii laay ndogoo di fi kooroo. fii ngeen déranger wu ma. déranger wu ma waaye boo fi génnee jikko bandi ma nokku la. bul ma laalati nga ne. boo fi génnee jikko bandi billaay amul sa xam nga sa doom nekk fi boo fi génnee jikko bandi ma buddi sa karaw man amul ay sama kóor nga dama lay saga, su ma la waree saaga ndax yow doomu haram nga. bu ma waxatee doomu haram ma def la lu ñàpp xonam. boo ci delluwaatee ma def la lu xeeñ. yow ngay bon bu ma duggee sa néeg sax ñu bu bon nga yor bu baax mi ngi dara baax fi xamati i wéyu wéyu ba wéyu sàppi leen ñuy taxawaale may wax mu naan ma amoo doom xom yow ngay ab wéyu rek tellement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 kaay ma nga kaay. waaye yow su waay nuyoo bi nga nuyoo façon nuyoo bi mooy lan. I said salaamaaleykum. non de mais xam nga lan eh, eh, la da di am yar ni nga ma nuyoo mel ni kuy nuyu benn benn xale bu ndaw kilifa laa man yii ngay may jaay nii di wax ay nii xaw ma angale ngay làkk xaw ma yii dañ ko def ba ko. def say rase nii lii nga def nii nit day am respect koo xamul nak dee ko woowe eh, xamuloo so I don't have respect. wuy ma baal anglais man magum jëmu laa bandi maa la gën a bandi fi ne koor gi la nekk rek koor man daan koy sellal nii waaye su sumee ko woon léegi bandi rek ngay gis ci man man lu ne dund naa ko tey su ma futteeku woon lu maarik lu mat a ngi sama mbàq lii kanif dama koo maasale lañ set noonu fit gi ma am amuloo ko koo xamul de ko woowee eh, fii may wax ak yow tat laa def tërëf te doo ko mën a xam ci man kon nag dalal te nuyu ma nuyu kilifa moo gën nga naay may paa. I ma la xam leen ki ngeen di waxal man bu dee woyu maa la bu dee fit maa la ko ëppale. réew ngeen trop. Mo. Like whole knife. Like whole uh, who's, who's this? Eh? Hmm? Old guy. Who is it? Ah, papa. Ah, my mom. It's my mom, yeah? Mom. We, my mom. You, my mom. Your mom? Papa, uh, oh, yes, okay, mom, grand, grandpa. Papa, it's grandpa. grandpa. Okay, okay. Yeah, yeah, I'm going down the water. Oh, because. Oh, because. Oh, man, man, man, yo. mun na ma non parce que koor gi nii nii nii di mandi. dafa mandi. waa bii ah c'est bandi international bandi yi ngay dégg yëpp moom si la bokk. Medina Medina rajo xam nga Medina. Medina foofu la jógee ñëw fii nee na force day boot fii mooy sama papa ba mu ñëwee rek dañ doon xeex. kii dafa dafa sama maam la moo tax bugguma ko mais day mandi moo tax kër gi ay papa. yow koy di nga noppal jëw suma papa dina la noppal léegi moom am na ku oh ok ku topp c'est good mandi is mandi you my mandi yes okay nice mean mandi mandi yeah. wow yow daw men you man foo na dem nga di. ah man de saa waay laa jiitleel mu romb ma di génn ma xam ne su ma ko dabee xuloo dina am xeex dina am. ah papa yéen lu ngeen di xuloo. dafa ndànk man des ba mu dem ba sori ma mën a li am solo nag mooy xam ne sama ñëw bi gi da neexul lu ma fi yakul amul parce que xam nga ne moi euh, c'est pas la bonne avenir quoi moi. sama ñëw gi ma ñëw franchement euh, neexuma ndax bon amul luma yakul dem na ba taxaw ne ma tu es un imbécile. Ah! saaga ma saaga wax mooy wax ju ñaaw di ma fàttali loo xamante ni démb la woon te mu mën a ñàkk nag. loolu dinaa ko lijjanti. daa lay xamal ne la. yow na sa xol sedd. gënu maa am fit ëpp ma amul lu ma ëppale. waaw bu dee jom gënu ma ko ëppale bu dee wuyu bu dee bandi man lu ma deful ci dëkk bi euh, amul lu ne jaay naa ko. lu nit di jëfandikoo ci lu ñaaw def naa ko damaa dem ba xam ne àdduna amul sala ma giif ndës giif giifa ma di waaw loolooy dëgg giif daal waaw giifal nafa maayen laay daan dund dama daan xëy show ba ngoon di def ay bêtises di def ay garawaali oto police fu ne di ma wër di ma recherche kon bu ma demee ba yàlla dogal ma wëlbatiku giif na ma ba lan la may jaay lu may jaay jaayu la dara dafa tàng rek waaye xam nga nu ñuy def man maa ngi dem damay génn nii léegi nag comme moom nii la ko yàlla bindee. dem ba naan ma téye son imbécile. saaga ma nday. waru la saaga moom saaga moom waru la ko def waaye saaga bi moom dinaa ko lijjanti na sa xel dal. téye son imbécile xanaa bu ne mooy imbécile. bàyyil mu sedd rek maa ngi dem te ñëw. may la suñu dam war a génn boo paree nga jug dem fi ngay dem daal di dalal sa xel yaa ngi may dégg. amul problème waaw kay dafa bu ma waree dama doon bëgg a doxantu rek. téye son imbécile yow ngay ti ab tapet man bandi laa woon ku ne xam na ni wayu laa woon te assumé naa samay responsable ne ab bandi laa woon gaseer ku suba ba di xeex te kenn fay amul lamb ju tojul andak ak lamb ji mbër yi ñu jamatama fu ne di ma woowee jaay sa ruu ñii di ma woowee diimal problème ak cinquante lu ne yow ngay doon tapet bu rëy daw daw ba sa yeel amatoo ko taxaw nawet fii di ko xoñu ñaan gàtt sa waay